voilà muy mbir boo xamante ne euh, depuis booba tey nit ñi ñu ngi ciy coowul bu baax a baax même bu fekkee ñu bëree bëri au début euh, gëmuñu ko woon parce que ku ne xam na euh, Guy maris ci religion bi nga xam ne moom la bokkoon muy quand même loo xam ne nëbb koon benn yoon mais quand même fexe woon na aussi ba amoon ay relation yu wër a wër ak religion musulmane bi donc moom Guy Marius Sagna ñuy xamal nii Euh, ci ay sources yu ñu am ak Seneweb euh, te bi ñu ko vérifié aussi muy mbir boo xam ne lu wër la dafa convertir euh, ci li nga xam ne rek moom mooy euh, religion musulmane bi donc actuellement mu doon euh, musulman loolee nag bi muy am muy dimanche bi nga xam ne moom lañu génn waaye leneen la ca toftal mooy Guy Marius Sagna dafa jëlaale ñaareel donc muy loo xamante ne vraiment loolee tam bi ñu ko vérifié aussi muy mbir bu am xale bu jigéen bi du kenn kuddul Awa Yacine jeng bi nga xam ne du kenn kuddul doomu Juma Dieng Jaxate bi nga xam xam ne ambassadrice ñu yàgg ko xam ci li nga xam ne moom mooy mode ak ni muy teewalee Sénégal fépp fa nga xam ne rek euh, fa la euh, mën a jëm. moom nag ku jigéen ki nag euh, on se ay jamono moom ak Guy Marius amoon nañ fii euh, doom bu jigéen loolee nag juróon fii ay coow lu baree bari euh, ba mbir mi sax moom Guy Marius Sagna mujj na ko assumer ba noppi daal di taxawu xale bu bu baax a baax noonee nag la ñuy xamal ni que jamono ji moom Guy Marius Sagna ginnaaw bi mu tuubee dugg ci religion wu euh, musulmane bi fexe na quand ba daal di euh, jël soxna muy ki nga xam ne rek moom mooy Awa Yacine Dieng bi nga xam ne du kenn ko dul doomu Juma Dieng Jaxate